jàpp ñetti dex nga di sang moom waxaan yu bëri ndeysaan man sama bàyyi taalibi Cheikhouna Tidiane ah waaw tey moom suñu moom demee sama mhm. at ak fukk ak ñeent la dund ndeysaan ndeysaan ñu tudd sëñ mhm. ko yàlla ci man maay taawam mhm. sama baay moom nett li ba toog ak juróom-ñi juróom-ñett fukki at. Mhm. soo ko jël soxna. Mhm. ay dong rek la ko soxla. Mhm. bari wutoon ci lenn àdduna. daan wax sama kaamil bi doomu laa mënut a ñàkk. ak sama kurus gi. bi mu amee juróom-ñett fukki at te nekk ci digg dëkk bi boobu ñoom suñu Mor Mbaye Cissé ñëpp a ngi yëngal. bari na ay imaamu raatib yu nekk biir njaarim ak ay directeur yu baree bari doo gis njaarim koy la jaaruma ci Seydina Ibrahima daara imaam Ibrahima rek la wax lenn ci ay mbokkam ne ko nag yor soxna jot na ci yow ak li ngay màgget lépp nii. Mhm. ñu indil ko benn soxna soxna soxna daal xaw a xaw a daal mu bett ko lool. Mhm. ndax aas bu aas bu bari. Mhm. góor gi sax daal di koy yebi yebi ci guddi gi. ci waxtu yu dikkee ko daal di yeewiwaat. parce que amul nekk ak soxna wala dara. bàyyi xel soxna. soxna soosu bi mu demee ci guddi gi ñu sama kër bàyyi ñu delloo siwaat ko kër bàyyi ci guddi gi fekk sama yaay doon tuut tànk am fukki at ak ñaar mu kii ñu yóbbu woon te mu wax na ki ñu ko booleel kooku dafa màgget moom fanaanu ko sax man nag damaa doon xale waaye ku ma fa maye woon danaa fa toog liggéeyee fa yàlla. muy sa wajuru jigéen jigéen. ndeysaan moom maamam bu jigéen la doon àndal di nekk ci wàllu bu Serigne Fallou ndeysaan sama maam daal di daalu jël. Mhm. daal ko jël teg ko ci aw fas guddi indil ko sama wajuru góor. Mhm. maa ngi ko yore maa ngi ko yore ci jaari moom. ak sëñ Moustapha Guèye Daara. Mhm. ak euh, sëñ Habib Kañ ay ñoom Baye Daare Kañ ak ñu bëree bëri ay ñoom Mansour Mbaye moom directeur hôpital lu Kañ ñoom ñoo doon condé boobu soxna si doon naat am ndongo ci biir ndongo yi di jàng alxuraan di wàcc ko ñëpp ndeysaan ba noppi di di taxaw waaw di taxaw góor yàlla gi nga xam ne maamam la sama baay maam maam lañ ko daan woo léegi nag yàlla na too ko nag man maa ci doon man maa man maa ci njëkk gane jamono mhm. fekk ñu ngi am benn wóolare Serif bu ñuy wax Serif Aydara sama baay dafa wóolare wóolare sama moom la ko tudd maam Serif yëkkatee bay waaj a tudd wax ko ne ko Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo na daal oh. na kal sama bàyyi nee na boo xëyatee suba ba ngoon lépp loo teg loxo te du see rafet yàlla nga mën a bàyyi loola mhm. ndeysaan kon man man wéretu ma ne yëkkati ma nag sànni ma kër gu mhm. ma mhm. ah, ma ko alxuraan waaye pour ma delloo ko ci rek moom sama mooy jurul bi damaa gaaw bu gaaw gaaw bi muy dund 1994 bi ñu naa fi ngir ma bégalee ko moom dama ko doon jox wàllam ci nag bi la mm-hmm. dal yonenteel Ibrahima moo ko dal ci man mm-hmm. daf maa gëmee wutoon daan na toog yàgg mu naa a ah, am mm-hmm. yàlla baaxee la rek gëmee wu ma ci kaw bàggam bi waaye comme alxuraan la joxoon léppam nag alxuraan fayeeku lii rek alxuraan fayeeku lii rek doxin woowu nag la ñuy doxee ba léegi gis nga kuy soog a doon Baay Faal say mbokk dañ naan yàqu nga dem naa ko ci benn école boo xam ne damaa dugg ci école bi xale yi ña fa doon ay baay faal yu ndaw bi dem ñu leen ñu leen wàcce wan leen njëg te gàdduwaat saag te duggaat ci école bi moytu nit ñu bàyyi faal maa teel na teel na boo toppee cant bi topp café gi topp rythme bi topp xii te fekk jaaroo ca daara ji da ñëw rek fekk mu fekk ne biir Ndakaaru nii ci rythme bii nii nii nii nii boo moytuwul rek boo defee examen doo ci génn boo defee bac doo ci génn ndax la waaw dafa am ay comportement yu bari Baay Faal du tux Baay Faal du saaga Baay Faal du lekk alal jàmbur Baay Jamil nee na am na moo xam ne moo ko solee noonu tudd yow dong yaa ñëpp mu mu yóbbaale la si Muudu Aminta mu mu yóbbaale la maam Cheikh Fall mu mi nga sol ku la xool am mu la teg bu noppi nga ngàmbub cigarette tudd micro tudd yàlla tudd yàlla ba mu kawe malaaka yi wàcc nag aw saaga teg fu jëm ak yeneen si kii kenn dul wax kon su boobaa nag dañ koy tambali wat bi te do ko yamale wat ci mom moy la waxone ne muridullahi saadix ku deugal dug Cheikh dafa ne muridullahi saadix ku deugal dug nangum jam ta gis gor jaayante loolu xàcc wax loolu wendi weddi lu jage ta sori lol lo gis bax ni lo deg neex waaw waaw kenn du mom kan du moom Cheikh Ibra ah kay amna ci góor yalla ko xamne bi top mam Cheikh Fall lolou ko ay mbokkam waxoon kenn ko yaangi ngi seeti Cheikh Ibra bis moy ndenu ci de ñett rek nga fa mën indale kamar ko jaxa solo te dug kooku mom dang ko am ne ko itam ak ay sagar yu baree bari yu mbaax mooy njaxas ne ko nag ak ndox bu dutul wér ci aji yàq yooyu bu neex na ndox bu neex ndox ndox ndox ndox murit gisoo ko nii waaw góor yàlla gi def na kër maam Saraay Fall ñetti at Cheikh la def ci moom lu mu deful ci kenn keroog bu muy dellu si dëkkam ban ko séenee muy ñëw kawar gaa nga daanu ca gannaaw njaxas ba wala ay sagar yi ñëw bi mu dikkee fekk mag ñi ci ci càkkar bu mag bi ci digg pénc bi ñuy ndékki mhm. ñu ne ko ñëw nga mu ne waaw ñu ne ko loolu la waxoon kawar gu jaxasoo mhm. sagar yu xotti bari baax mhm. ak ndox gu duggee mu ne waaw bisimilah jàmm fekk ngànj taal mu yëkkati ci génn giléet teg ko ci kaw bi xand bi tàkk mag ñi ne waaw koy néeg bu fi def ñu ñëpp ñu fiy dajee feexu nga ñëw boyal ko nii ci suñ kaw daw génn néeg moom mu yëkkati gis bul xulóob ah, gis bul xulóob yëkkati di ko jàng di ko jàng di ko jàng bi gis bu koy jeex na néeg bi daanu ci kaw mhm. mu waaxu jaar ci kaw xalit génn daal di tey kenn du fi fanaante nee woo faal ah, ndeysaan kenn du fi fanaante nee woo ah. Ah, mhm. nga xam ne da xelu ñëw mbaa nga xelu ñëw se seet la nekk wax ne mhm. da ngay dugg xuru gëm yàlla gas ree ni yéene witt xasum toroxlu ak xobi réccu soob ci gën ak tuub dëbb ak kuuru tabe yàq ci ndabu teggin séddale koo gi muñ li yooyu àdduna ko ko mel kay doon nga bàyyi faal fi mu ne da ngay lu muñu yor ko yorul koy tooñ nga bàyyi ak yàlla <laughs> wallazina jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa hmm? aha kay wallahi wallahi wallazina jaahadu fiinaa ñoom lanahdiyannahum subulanaa ñun jublu woon nañu ba noppi jubal nañu waaw léegi nag tegal lañ la cere ji tegal lañ yeex bi indil la ku biyeeg yëpp nag amal jom ju toll ni nag nga jëfandikoo genn wet rek te bàyyil ci ku ñëw moom itam góoru arab ga dafa am juróom-ñetti fukki at di jëmbat ay ay garabi tàndar mm-hmm. ñu ne ko góor gi yow noo mën a amee juróom-ñetti fukki at di tàndar ma xanaa noonu naroo lekk ci meññeen mi mm-hmm. mu ne waaw danaa faatu balaa amee doom waaye man ba ma juddoo damaa lekkoon tàndarma daa am ñu ma ko mbayeeloon waaw waaw comme am nañu daan bay tàndarma damaa doon gone rek tàmbalee lekk tàndarma te man jotagu may toog te tàndarma dégg naa boo ko saxalee mhm. balaa am doom am cinquante ans waaw waaw waaw kon day mel ni dafa mel ni sax ah. réew mi nga xam ne mhm. ñoom xalaatuñ ne danañ développé ñoom day mel ni xalaat boobu lañ am waaw mooy def léegi mu sotti léegi nga jëriñu léegi est-ce que Cheikh Ibrahima noonu la defoon man sama xel doxewutoon noonu nu mu def dafa jëmbat suuxat ba mu màgg mu toppatoo yii ba noppi góob bojj togg ko ba mu ñor mu jox ko jaam ñi moom fande laa ilaaha illallaah maam Cheikh Ibrahima Fall Sëriñ Tuubaa bi mu njëkkee gis sondel buy tàkk da koy xool sondel bi tàkk ba daalu sëñ bi de est-ce que yi béti Ibra Fall daal de moom la day leeral jaam ñi waaye day lakk boppam ndeysaan xam nga sondel boo ko taalee lu ko wër day lëndam waaw mooy leeral néeg bi nag waaw waaye moom du ci lekk mhm. Mhm. jikko jooju rek la yor mhm. waaw moy moy gorsi, mo deg alquran alxuraan sëñ Bamba nee na Cheikh Rafal yàlla gërëm na ko lu tolni tolbi alquran alxuraan lu toll ni tombi alxuraan laataa may gisee ak moom lu toll ni tombi alxuraan waaw alxuraan daa xaw a sakkan waaw duñu dem alquran six aya la 114 mhm. sar saar isi 120 243 480 sumun la mhm. araf mhm. la la ci ay baat 3770 millions ce kon maam Serigne Fall am na 3 millions 770 jëf du ko yàlla gërëme laqal ko ko laataa muy ko kooku fam denc magasin ba teg bu fa de uh-huh. bu la loolu jaaxle ko sëñ Muudu Aminta ak dencam ba fu ne uh-huh. ak ku ko bëgg a sellal noo koy mel uh-huh. sëñ bi xam nga gën jaamu yàlla moo ëpp doole ci xeeti jaamu yàlla yi fexe ba lépp loo lekk mu dagal ndeysaan Baye xaalis boo xam ne da nga koo dóor ay millions ci benn waay mën naa taxaw ci plateau télévision bi légui wax lo xamné suma génné addu bi ñepp bi ñëpp wajé bari xam-xam fekk xawma ci mom dara ni ay door lañ cay jëlé lu lay jëriñ dara pourtant poosub sëñ bi sëñ Tuubaa moma ñawal poos bu reuy jox ko mam Cheikh antane ko duyel mako ay copar mam Cheikh antane duy kopparee ba nopi mu jox mu mbuubum Cheikh Fall ma sol ko sa yo ko lambé nak fekk ko sax ci sànq ci yakara ma lay wax loolu mag na la affaire xaalis mom mom lu samay problème man suma ko soxla damay jël sama téléphone dal ni ay bouton ak lu ma soxla rek ma mat fanweeri minute sama soxna bu doon naaw ci hélicoptère sax dana fexe woote ci suuf ne bisimilah defal leen bàyyi fan bi ñu teew ndeysaan te ma nga ca Autriche man parewu maa dem Bambey séeréer parewu maa dem fenn Màkka ak Allemagne ak Autriche ci man génnuma réew mi sëñ bi murid maa ngi fii ñaata passeport laa denc ngir bañ ngir bañ ñu génne ma fi ne toog <laughs> <laughs> am na ko fa xëyee moom doyal fa ma bëgg a dem feneen looloo wér waaw dëkk ma tey du may Ndakaaru tey amna na ko xam ne man tey du ma fanaan njëriñ maa ngi jëm Kaolack. dèjà seen oto yi da nañ rombante. dèjà waaw. waaw bir man dal man dal limay waaw sama noos dal mom mo Cheikh Ibra. réew mi benn médicament rek la am fi buñ bëggé partage beeg. seddoo beeg. jàppalante beeg. dimbalante beeg lepp mun ko bëggé nañ fexé am kilifa. ci nañ fexé am kilifa. Mhm. man ken mom ma. Mhm. ku ma neex lay yenn mhm. ku ma neex lay fanaan. lu ma neex lay wax lu ma neex lay def. maa la gën a maa la gën a maa la gën a maa la gën a dof maa la gën a réew maa la gën a bandi maa la gën a yooyu noonu moo indi problème bii nii mhm. moo indi problème bii nañu wutiwaat kilifa ñi doon ay kilifa tam mhm. maa ko taxaati atan amran xata tashaluuni ku ko waxoon Souleymane mhm. ku mu ko waxoon ku ko waxoon Balxiis ñu ko waxoon soldaaram ya fu mu jëmoon kër Souleymane pourtant président bi waroon naa di def loolu loolu mooy lan lu muy tekki ba noppi. maanaam du ma jëpp du ma jël benn décision ci def nangam bu dul dama caa waxtaan ak ña ma ca war a waxtaan waxtaanal ñu xelal ma ca xel mu rafet. maanaam diisoo daal diisoo wala maa jóg. te jigéen a ko waxoon de. jigéen boo ci waaw la reine de Saba. Balkis moo waxoon loolu. pourtant Cheikhul Khadim loolu la def. Mhm. bi convocation yi baree rek digganteem ak nasaraan yi. diggante boobu jalt jalt jooju rek te jamono boobu xam ne ku tubaab woo ku ne say mbokk duutu nelaw dëgg la kajoor bawal jàmbur si def saalum gépp tubaab bee ko bombardé buur mhm. yeeg baa doole yeeg ceddo yi kenn ku nekk tubaab bee jàpp yóbbu fu ko neex jaayee li ko neex kenn lijjantiwu ko mhm. a gis jox ko convocation yu toll noonu te wujjiwu jamono bii nga xam ne droit de l'homme am na ak lu ñuy défendre doomu aadama mhm. nga xam ne am na loo xam ne sañoo koo te kenn sax buñ la wooyee ñaari yoon boo demul dañ lay jël si ah, waaw Ahmadou nag li istilay temps laa doon xaar pourtant am na bis muy laajte loolu. Mhm. woo mag ñëpp. yaa ngi sama diggante tubaab bi moom ñu ngeen ci xam. Mhm. diggante woote bi ak war a war a wuy ji. Mhm. am na ci murit ñoo xam ne sax bu la Sëriñ Tuubaa laajee loolu dañ koy xool rek di jooy dañuy xam lañ koy wax. xam nañ sëriñ bi ëpp fitam ak njàmbaar gi te xam nañ tubaab bee koog caay caayam ak loolee. Oh. te xam nañ ne Ahmadu boobu dellu gannaaw. te xam nañ ne tubaab bi du mës a bëgg Ahmadu. boobu boobu boobu boobu tase. bu ci yërmande ànd. du sotti xelum doomu aadama kese attunu léeg-léeg nga gis na ne ko man daal damaa bëggoon mu takku ñun ñëpp rek dem songu leen xeex ak ñoom ñu rey nu bañ dee ba jeex benn yoon. Mm-hmm. am ci ñoo xam ne ci xelu nit dañ naan ko ñu daal bëggoon nañ boo demee sax nga moral ak ñoom maanaam waxee nii fexe suukar wax ji ba mën a déggante ndeysaan yërmande rek. Mm-hmm. keroog suñu jàmm Abdourahmane Lo moom moo jur bañ a bokk moom daa dem beru yi fële. bu su ne suñu daam da ngaa bëgg ko ci wax ji mu ne ko aw ma ci aw ma ci lu may wax yow waroo ñoo laaj nu may def ak nu ma dul def ñun amuñu digalal du la digal laajal yàlla sa borom mu digal la yow nga digal mu def oh amul laajal yàlla sa borom mu digal loolu yàlla digal nga def loolu te yow nga digal nga seen digal loolu Sëñ Tuubaa ku jàmbaare woon daal di jël bi du ko yeew ci digg dana ko yow wax dëgg ci la décidé na di nga kan Modou Moustapha Fallou Baare ci ci la liggéey liggéey bu moo tax bi mu demee ba dellu si toog na benn naa ah, suñu daam daf maa namm sëñ Tuubaa ñu gis ne ba demaat gànnaar ba dem ci yéen jolof ba tourné waat ba dellu si waat bis am bis rek mu ne si ndam dafa maa namm mhm. dem seeti ko bu ñëwee dafa ñëw daal yëkkati ak kurus moom Seexul Xadiim donc sëñ daam maa la ko rafaatale mhm. ngir nag ma xelee la woon ca ba may dem mhm. daal di tekki lu mel ni lu mel ni benn morso ne ko suuf Daaru Salaam soo su ci sëñ Tuubaa takkoon nekk li muy nekk ci géej gi lépp mu ngi yóbbaale suuf soosu ne ko suuf si dama koo tarbiya ba mu nangul ma ko suuf si Touba Ndiaye di Daaru Salaam dama koo tarbiya mu ànd ma liggéey bi ba nangul ma li ma koy sant daal ko rafaatale naa la daal di am benn der bu mu génnee ci lu mel ni ak gaal moom sëñ bi daal di koy tekki ne ko der bi keroog ba ma tubaab yi di koñi ci seen gaal ga mhm. der bi laa julee ñaari rakkay tisbaar wàññi mhm. yokk yóotu ñaari rakkay takkusaan sama ñeenti rakkay der bi laa ko julee daa ko rafaatale naa di ko addee rasul léegi suñ daam nag daal di daanu mhm. <laughs> daal di daanu nag de seen tàggoo sagom nag jooy jooy yu métti lu ko sëñ bi tege loxo nag daal di ko xamal xamal nag ne ko dem gii mënutoon a ñàkk mooy li sëñ Moussa Kay wax doganteeg dem gii wolof nasaraan te billaahi kon ñëppay dem nii reen mooy la jamono ju yàqoo fii tey la xaalis gën a bari tey la kondaay gën a bari tey la dem gën a yomb mhm. tey la lijjanti gën a yomb da mhm. nga daan xëy fi bindub leetar war koo yonnee Njaaréem mhm. bindub leetar war koo yónnee Côte d'Ivoire bindub leetar war koo yónnee France ñu def un mois léegi si biir néeg ngay toog def téeméeri dërëmi crédit taal wi fi xoolal wóor adduna bi yépp ci 30 secondes wala neex mais barkeelu xam nga lu ko def dañoo amul kilifa génn góor daa toll ci sukuraat moo tax maam si Arafaal kenn du moom borom talaata góor gi daa toll ci sukuraat am ñetti doomi góor ak ñeenti jaam mu wax ne bu ma faatoo sama jaam yi bu leen di séddale na ku ne am ñaari jaam waaye loolu mënut a nekk ñetti góor ñeenti jaam waaye bu ñu séddoo ku ne benn jaam la a am mu des benn waaye ñetti góor ñeenti jaam góor gi ne bu ñu séddoo na ku ne am ñaar kono ki faatu bàyyi leen waa arut ak waa bayaan ak waa fiq ak waa mantiq ak borom xam-xam yàgg nañ faa ñëw di miraas ni yàlla na toll maam Seex Rafal liggéeyal yàlla ba fanaan ci dëkk boobu ci suma sama gis ñu laal ay basam mu a ah, doom lu xew fii ñu ne ko dañuy miraas mu ne ah miraas ak séddale niroo nañu waaye bokkul aji màkka dem màkka loo niroo leen waaye bokkul de mhm. sëriñ ak borom xam-xam ak borom ñaam ak boromum njàng ak kuñ may ak kuñ defar ak kuñ bandil niroo leen waaye bokkuñu ay waay Cheikh Fall daal ne wërsëg ak alal niroo leen waaye bokkuñu waaw daal ne lu xew ñu ne ko ñetti góor ñeenti jaam ñu ne buñ séddoo na ku ne am ñaar mun loolu seen bàyyi wax ñu ne waaw mu ne ah kay góor ñoo bokk ndey baay ñu ne waaw mu ne waaw ku ne ñaar lay am ñu ne ko faal téere yi waxuñu loolu ndax waa fiq ak arut ak bayaan daje nañ fi mu ne ah doom téere gone la ndax téere moom jant maase te karool bu ñuy bind jant ñeenti mu lay ko jàppoo ak man sara fall doom rek dama jàppoon moo gën a tàng ci laa jëli sama asma bii moo tax man sara fall mhm. daan na jël gënu xay lépp ci ak junjeer bi mooy pompe asiatique yi ngay gis tey bu ko yooyu masaan daaneel daana ko taal ngir ngir suuree ko boppam wala mu xëroo ko ngir ko daane moo tax tey ku taalib secret daan nga taal pompe ñu ne ñu ne am bàyyi fàll déedéet demal kasi muudu amee tam boo fa taalee pompe ñu duma si rafal si rafal nee na ñaari jaam jox caat bi kon jaam ñi des ñaari jaam góor ñi des ñaari góor Mam sey Rafal yëkkati ñaari jaam yi ci des jox ki top ci caat caat amna ñaar ki top ci caat amna na ñaar jaam yi jeex waaw tawlu mam dara mam sey Rafal xànc yim yor mom la yewat ci baatu caat ak baatu ki top ci caat om ma teg ci loxol taw ne ko sa ñaari rakk yi ñooy sa ñaari jaam ñu li seen bay wax la ilaha illallah kooku abari xam micro Amadou ya Fall Faye Ndiaye Amadou Fall fay Ndiaye biran Diop ma ca ngay góor dëgg la Fall loo wax nga ilaha waay waaw góore waay waaw góore waay waxaat ko ci kaw waay damaa guddee nga ne lan dégguma la. eh eh, eh eh man sàkk fi Ibrahima Fall ba fii tariqatil foofa ak fii ak fa wax damaa guddee xaali yeeg sëriñ ñoo ànd dajale seeni xam-xam des di xaar laaj kan Cheikh Rafal ya la ilaha illallah waaye pays suñu borom yi fu ñu fu ñu dem na Cheikh Rafal fa la nekk bu ñu fekk maam Cheikh Rafal weesu foofu may sa bigee kumba faal yow wi ak ak ak ak asaka ak jaaxal na la ilaha sëriñ si ci seen bopp nag ñoo dajaloo ci seen biirum néeg def fukki laaj ak benn ni ñu ko yóbbul daaba imaam sa injaay injaay bu toog laa ilaaha illallah ee eh, naar yi ñëw nañ ñi ngi laaj maam Serap Fall benn bu amul ñaar ñaar yu amul ñett ñett yu amul ñeent ñeent yu amul juróom juróom yu amul juróom benn loo wax juróom amul juróom-ñetteel ndoxu bàyyi ko wut asamaan ko wut suuf teen bu def ñeenti ndox ñetti ndox yu xelite bokkul laa ilaha ñu ngi laaj genn garab goo xam ne juróomi doom la def waaye ñaari doom ci naaj lay nekk faw du ñetti doom ci ker te du laal naaj lii laa ilaha ah maam Cheikh Fall na a ah, doom bisimilah jàmm benn bu amul ñaar kooku yàlla sunu yàgg na fi kenn wéetaliwu ko Fall ñaari amul ñetteel mu ne guddeeg bëccëg guddi kukk bëccëg naññi booy dox ci guddi doo xam fu bëccëg nekk. lamp si ñu ne ko Fall ñaari amul ñeenteel si Arafaal la ñetti raakay timis kenn du ci yokk dara wàññi xa dolli ba. lamp si lamp Fall lamp baabil. muridi ñu ne ko fa am ñeent yu amul juróomeel mu ne ñeenti téere suñu borom yi tawraatuha xadi tawaaha Muusa injiluha xadi tawaaha Isa zaburuha xadi tawaaha Daawuda kama tawaa furqaanuha Muhammadu rasulullah bu dul woon nag maam seera fa am mareer jaab ñi bee amul juróom benneel maam Seex Faal ne mooy arkaanul islam fonk l'islam yi juróomi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam nee na fonk l'islam juróom kenn du ci doole dara. budul woon ak maam Seex Faal ma réer jaam ñi benn juróom-ñaareel juróom-benn yu amul juróom-ñaareel mu ne xalaqa samaawaati wal arda fi sittati ayyaamin juróom-benn fan ci la sa borom bind asamaan ak suuf loolu maami Cheikh Modou Fallou Fall yow ku réer yaa ko gindi naari sëriñ fi na ko waa Fall juróom-ñaar yu amul juróom-ñetteel mu ne ah al usbu semaine bi boo tàmbalee dimanche boo exploité samedi muy juróom-ñaari fan boo ko defee ñeenti yoon am weer li tàmbalee tey ba naxaar ah. gannaaw yoonu saxaar ñooy laaj maam Seeraay Fall ne ko ndox moo xam ne bàyyi ko wut ci asamaan te bàyyi ko wut suuf te doomu aadama yi naan nañ ko fu mu bàyyi ko itam bala tey ba naxaar saxaar jàll gannaaw yoonu saxaar maam Cheikh Rafal nee na keroog ba Balxiis di dem kër yonent yàlla Suleymaan ñu ndox ba tàngaay wa jàpp leen mar wa jot leen te amuñu ndox mu naan mbëru mu fi rëy ba naan la kaar Cheikh Ibra Faal ngay laaji pexe maam Cheikh Rafal nee na keroog ñaqu fas yooyee moom la ñu wetti def ko ci ay booli xànjar taal ko la ci xorom naaw la ci des def évian ci la gaañe naan li tàmbalee tey ba naxaar jàll yoonu saxaar ñu ko waa Faal nag dañ lay laaj nag benn bu def ndox yuy xeliti bokkuñ mun a ah doom bopp doomu aadama ndox mi bàyyi ko ci bët ak bakkan ak gémme ñett ndox way bokkuñu mbar mu fi ba naan la kaar Cheikh Ibra Fall ngay laa ji pexe asamaan foo xam ne Fall asamaan foo xam ne benn yoon la ma sa gisante ak suuf fii at bii tukki doon gisante mu fab soo bu jiitu leen Fall Bamba ne kii ëpp na leen maam Cheikh ba Firawna gërbalee Moussa ba cat bopp fas Firawna yi geeni Moussa ya leeram gu rëy gi war na leen fu mu tal xol bay nux nux yi alxuraan nee na fan ba xasat alxuraan nee na fan ba jasat alxuraan ne ko fan falaxa fakaani kullu firqin ka tawdil azimi mu fab soobu jiitu leen faal bamba ne kii ëpp na leen Fall nee na Moussa moo jël yaram yatam wa dóor ko ci baru xar su mu xar ñaar suuf si keroog la ma sëgg sant ak jant boobu leeram gone gi war na leen faal fu mu tallu xol bay nux nuxi mu ne ko faal genn garab gu def juróomi doom ñaari doom ci naaj yu faw du laal ker ñetti doom ci ker gi faw du laal naaj nag la ilaha illallah ya borom la ilaha illallah maam Cheikh Fall ne doom julli juróom doom julli moom tisbaar ci naaj takkusaan ci naaj timis ci ker gee ci ker fajar ci ker ya ma ya ma ci jiiri suru maam si na bu njaay daan wax naa doom baa xam ngeen seen bopp xam sa bopp lu yaamu yàlla la bokk na wala xam ne kam bani aadama de wa xamal naa fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa fadlan ala kaseem xanaa tafdilan xanaa xam loolu soo wotooneel yaa ngi ci noor boo sëqee kawar yaa ngi ci nawet soo gëmmee yaa ngi ci guddi soo xoolee yaa ngi ci bëccëg ëmbali mooy bekkoor ci suuli mooy naataange boo sëqatee dëndu na boo siñee melax na soo gañee xiin lay tooy na soo ëffee ngelaw nga soo jooyee taw nga soo gëmmantoo feebar nga soo nelawee dee nga bani aadama wa xaman naa fil bari wal bari loo teg